Bonjour, merci d'être avec nous. Bon réveil, lundi novembre Dans un mois, c'est Noël. Petit papa Noël. <laughs> dans un mois c'est novembre décembre léegi mu on a prévu plein de choses pour vous mais en attendant ñu nuyu leen gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média ñu ngi jëm 10 heures comme tous les matins alors juste ay quelques minutes de retard suñu njëkkaay la nag ah na ngeen ko xamee noonu ndax 7h20 euh, mais mooy doog a jot waaye ba fa ba 6h45 jotee ba tey euh, bi rédaction bu télé bi njëkk leen jox bi njëkk mu huit heures ngeen di am ñaareel bi eh, ci wolof lay doon daañu ci ànd ak eh, Mame ma nga taxaw def simis eh, neex a fekk Touba Mame Faty ñu ngi lay nuyu bu ñu demee ba juróom-ñetti waxtu jot ndax mën nga ñoo jox say xët ak loo fas yéene yaatal ci waxtu woowu. Pape Cheikh ginnaaw bi ma la fayee nuyu mbokk téléspectateurs yi xibaar yi li ci gën a fës juróom-ñetti waxtu jotee bokk na ca ñi génne woon fële ca Fastef amaloon ab xiifal xiifal ba dakkal nañ ko niki démb ak ndaw yi gouvernement ba li ñu xam sax ne ñu alal ba ñu nu dëgmal dala ñu fas yéene euh, tase ak jëwriñ bi ñu dénk njàng ak njàngale ñeneen ñu dakkal seen grève di gros porteurs yi ñoom it Pape Cheikh di yëngu ci dem beeg dikk bi nee nañu euh, juboo am na ci digg seen diggante ak nguuruk Sénégal Abdou Diouf nekkoon njiitu réew bu Sénégal jamono ji mu jiite OIF démb ci guddi la yegg si fii ci ndakaaru loolu yëpp Pape Cheikh ay ponk la bu juróom-ñetti waxtu ah, jotee yëguma loolu ñu boole ci ay reportage boo ko yëgoon ba tey taxaw naa buntu ay buntu aéroport Léopold Senghor wax ko lu baax ñëw na ni ki démb càkk bi ren ma ca xoox <laughs> ponk yaa ngoog bu ñu ci tegee reportage rédaction yi juróom-ñetti waxtu looloo na nekk suñu menu incha allah. d' accord et puis li nga xëyee boo ko ci sa noonu jëm ci dakkalu euh, grève euh, ñaar ñooñu ndongo ya génne ca Fastef ak euh, transporteurs yi ci loolu laa bëgg indi ay laaj ak ki nga xam ne ni moo di Chérif Dia Chérif nee naa ko moo fi ne ah est ce que xam nga ni Chérif a fi ne Fatick. moo fi ne kay Chérif a fi ne ah. kan Chérif mel. Chérif mi Dia. Chérif <laughs> Dia. Ah. waaw moom ma. da nga koo weddi. non weddi ma ko. <laughs> <laughs> li a ca a sañ a ko weddi ndax ba mu jógee Bawol ndeyam mën la ko dénkoon. waaw day jëlee ab. la. non moom euh, Jolof Jolof la. bàyyil tooñaa mam Fatou du sama morom ah. <laughs> la may def Pape Cheikh. bàyyi ko rek bàyyi ko man dinaa dinaa ko dinaa régler problème am mais damay bàyyi ba après yeewu leen parce que actuellement on a besoin de xam nga ñun Sénégal euh, ñaare comme je dis souvent dañuy dégg rek teel ni damm na donc ñu mel ni Chérif dañ ciy baax euh, pour duñu expliquer yi nga xamee nii dañu koy dégg euh, ci rajo yi ci télé yi ci seen journaux yi pour ñu mën ko comprendre alors fan yëpp ñu ngi ñuy wax grève ndongo yi jàngee FASTEF ah. ñoom dégg naa dakkal nañu nañu seen grève mhm. waaw dakal nañ ko démb ginnaaw comme ni ko Faty waxee sànq bi amee ay député yu fa dem mhm. ak euh, tamit délégation ministre euh, éducation mhm. di fàttali ni ñooñu euh, privé bi la woon ñoom dañu fayoon bokku noonu ci nga xamante ne dañu ñëw concours direct xam nga école normale léegi sax tuddatul école normale FASTEF la tudd faculté des sciences de l'éducation ak technique ñoom bu bu defee concours pare dañ daa jël ñi nga xamante ni dañuy fay mais ñooñu aussi daal di leen di affecté dugal leen ci fonction publique. Ah, ñun daa yóbbu mooy ñi fa duggee ak concours. Mm, mm, direct mm, ñooñu bu ñu defee seen formation ñii un an la ñii deux ans la suñ paree dañ leen di yóbbu maintenant bu demee ba am des ay place mm-hmm. ci école yi. ñooñu dañ ci daa jël ñooñu nag di leen yóbbu. Mm-hmm. mais année dernière nag ministre bi mu ñëwee dafa jàpp ni. Mm-hmm. ñu ci bëri peut-être affecté nañ ñun war a affecté. ñooñu affecté wu nañ kon li mu mën mooy jàppale leen yóbbu leen ci privé yi. arrangé leen ñu jàll waaw mais daaw la woon du leen sax mais ñoom daaw la woon donc un an ngi nii biñ génnee ba léegi exercé woon mm-hmm. mm-hmm. looloo tax après nag ñoom ñu de la faim def nañ ko depuis plus d'une semaine bi seen argument mooy bu ne bu fekkee noonu la kon képp ku mën nañoo jël ku jógee ci privé wala ku fay xaalis force dañ mooy dugal te loolu précédent bu xaw a doy waar la mm-hmm. moo tax nag ñu ne léegi dakkal loolu mhm. il faut ñu arrêter affaire bi bi ñu ko nag moom moo tax ñoom ñu def pression mun grève la faim loolu sax naqari na benn député bu ñëwoon dem ku mel ak kii mhm. Hélène Tine mhm. jàpp ni lii chantage la ndaxte grève de la fin moom méthode la boo xamante ne maanaam genre chantage la du méthode bu baax ndax di xiifal ay jàngalekat lan war na jox joxe ay exemple ak yooyu mais xëy na mercredi bunta seeg ministre de l'éducation dinan dinañ trouver solution te tamit yeneen promotion yi ñëw moo tax sa école normale ren concours amagu fa ba léegi. xëy na yeneen promotion yi ba ñëw dugg si dina leen wax lu leer ne leen. yéen ñi jaan ci privé bi gouvernement bi amul obligation. pour wutal leen liggéey pour wutal leen liggéey. Ah, je pense que c'est très clair loolu lu jar a euh, fàttali la donc ñoom ñu doon grève ah, mm. euh, ci la ñuy ak. ak ministre ministre de l'éducation Serigne Mbaye Thiam. Mm. peut-être buñ ci génnee dinañ trouver ñu def mise au point yi. ñeneen ñu doon grève fan yëpp di euh, camionneurs yi ñiy dawal oto yooyu le nga xam ni dañoo dakkaloon euh, seen i activité ci bis yi la ñu génn. waaw c'est vrai ñooñu ñu ngi bokk ci syndicat bi ñuy wax euh, central bi ñuy wax CNTS FC Gora Khouma moom moo jiite. transporteurs yooyu ñoom démb tamit ba guddi ay vingt une heures vingt deux heures ñu ngi woon ci ministère des transports ngir waxtaan ak moom di élément kan bi buñ fa jógee tamit trouvé nañ ay solution même si am na ñaari as yoo xam ne ba léegi d'accord uñ ci mooy wàññi carburant bi ak tamit charge à l'essieu bi maanaam peese bi nga xam ne moom leen peese camion parce que jàpp nañ ni Sénégal bu fekkente ci wàllu UEMOA la Sénégal rek moom a yem ci euh, onze tonnes cinquante ah quatorze dafa bëri waaw ñoom nee koy def mhm. ba tax na gouvernement bi nee na comme UEMOA la décision boobu Sénégal mënu ko jël faaw ñu bind waa UEMOA mhm. fii ak année bi di jeex 31 décembre pour ñu xool lan la leen UEMOA di tontu mhm. ak wàññi carburant bi aussi ñoom ñi ngi def pression tey sax dañ woon bu benn oto daw duñ sax si camion yooyu mais yeneen transport yëpp ndax jàpp na ni bariwul pétrole bi wàññeeku faaw ñu wàññi également carburant bi loolu également décision boo xamante ni ministère de transport mënu ko jël ndax mi ngi xam gouvernement la mi ngi sukkandiku ci ministère bi ñuy wax ministère de l' énergie. Mm-hmm. donc il faut ñoom ñëpp ñu daje xool naka la ñu def bu fekkee mën naa wàññeeku carburant bi ñu wàññi ko. lan moo tax ñoom ñu dàkkal seen grève waaw li li tax mooy parce que quatorze lu toll ci euh, ay points yi dafa bëri ay ay na plus d'une dizaine de points mm-hmm. mais gouvernement bi d'accord na ci lu bëri parce que bu fekkente ni wàllu kii la ne euh, euh, garage yi mm-hmm. nee nañ léegi dinañ leen trouver benn solution pour ab garage boo xamante ni camions yi dinañ fa mën a taxaw mm-hmm. am na également beneen boo xamante ni mooy tali bi léegi am na ay contournement yu ñu def jaaree ay Diourbel Fatick au lieu ñuy jaar diggante Kaolack Fatick ndax tali boobu baaxul également loolu la mën boo négocier doone lépp d' ci lépp gouvernement bi bàyyi na benn wàll nga yéen na ci yenn yi mais ñaar yooyu daal moom ci lañ wuute mais am na yeneen points yi moom d' accord nañ d' mu ngoog ñoom nga xam ne ñoo bokk ci syndicat wu yooyu le euh, bi ci euh, topp itam boobu tey ñu koy euh, laam-laamee jëm ci déclaration yi président Wade defoon keroog bu muy meeting alors am ñu jóg def li ñu tuddee levée de bouclier nag ñi ngi nekk ci parti bi nga xamante ni mooy AFP ak tamit. waaw euh, euh, li tax li ñu tax contre ci li ñu contre ko mooy dañu nekk ci pays démocratique boo xamante ni président bi fi nekk doon ko fal pour euh, une durée bien déterminée muy normalement juróom-ñaari at lañ fal Macky Sall. Mm. moom moo jël décision wàññi ci ñaar muy. juróomi at juróomi at donc 2017 normalement ci lañ war a dem élection. Mm-hmm. un ancien président daal di organiser Abdoulaye Wade meeting moom daal ne il faut ñu daal di anticiper élection. mooy organiser ko ci 2015 bon ñëw na ak ci datam xam naa ku jàkkaarloo nag moom danañ ko laaj fan la jëlee dat parce que jàpp na waaw <laughs> du ko moom ni nga ko tàmmee. bàyyi leen sama nag waa AFP ak maanaam AFP nga xam ne dañuy jàppale APR nekk ci mouvance présidentielle bi ñoom ñëpp génn ne Ablaye Wade sax di ko wax cas clinique la parce que dañu jàpp ni. xel mi dafa am nu demee ah euh, Moustapha Cissé Lo moom ne foog ñu déglu Abdoulaye Wade mm-hmm. bu fekkee bu jaree li mu wax bu dee dëggal na ko ñu daal di koy sax tëj bu ko jaree ndaxte tamit loolu mooy politique ak démocratie comme ni ñu ko waxee woon colloque bi ñu fi mujj a jógee mm-hmm. débat la comme noonu mais peut-être li li ci garaaw mooy bu fekkente ne dañ dem bay menacer institution yi di wax ay kàddu yoo xamante ne xëy na du ko dooleel loolu baaxul te bi moom mooy mosuñ koo gis kon li ñu gis muy ancien président bu nekk opposant mm-hmm. c'est ça tamit colloque tam boo xoolee réussir nañ vraiment principal mobilisation bi mbooloo mi bari woon na trop. mais am na sax ay information yu ne am na ci ay cadre PDS yoo xamante ni peut am na yenn aspect ci discours Ablaye Wade bi d'accord ci parce que jàpp nañ ni dafa xaw a doy waar te tamit comme réewum démocratie la nekk nan xaar ba kin fal ba mandat jeex bu ko defee nit ñi doo ko dem mais ay commission transition <laughs> bon institution yaa ngi dox normalement mm. assemblée nationale justice baa ngi dox dëkk bu ne ci guerre. waaw <laughs> nañ ci yàlla musal donc loolu la quoi moo tax ah. vraiment Sénégal loolu lañ koy loolu loolu jàmm lañ fi xam uh-huh. bon Abdoulaye Wade nag du lii du lu bees quoi peut-être nit ñi dem ci kii nii mais du c'est pas colloque la ko njëkk wax parce que boo xoolee avant muy ñëw retourné fii uh-huh. waxoon na ko ba wax ay arme beeg yooyu donc li fi bees peut-être moom mooy date yi mu jàpp tey mu ñëwaat ak i datam ak également li wax ne moom commission bi transition beeg yooyu mais à part dara ba sul ci discours bi tàmm na ko wax même ba mu fi nekkee di opposé ak Abdou Diouf aussi yàgg na ko wax mais li ci xaw contradictoire un peu mooy moom Ablaye Wade tamit bi mu demee ba mbir jeex nee na yi ñibbi leen ci jàmm. Mhm. bu fi kenn toj bu fi kenn kii xam nga kon moo lay wax ni peut la ay ay déclaration politique la mais waaw bëgg na jàmm quoi parce que bu bokk moom mu ngi bokk PDS. ah euh, Babacar dafa proposé candidature Karim Wade nee euh, Karim Wade la bëgg mu nekk candidat ci présidentielle yu waaw loolu tamit li ci kii li tax mu xaw a suscité débat ni ba presse beeg ñëpp di ci wax mooy. ki ki wax muy Babacar Gaye ndax porte parole parti démocratique sénégalais la. Mhm. ndomba tànk yu bëri également samp na ko ci parti bi ndax euh, nekkoon na fi directeur cabinet Abdoulaye Wade bi mu nekkee présidence. donc jiite jàppale ci assemblée nationale nekk également président conseil régional bu Fatick. donc moom Babacar Gaye fi mu sukkandiku mooy koroog meeting ba parce que dafa jàpp ni ñi ñëwoon yëpp am na ay mouvement soutien yoo xamante ni Karim Wade lañ doon soutenir. mais li ci jaaxal ñu bëri également mooy ñu ci ànd du bëri parce que waa PDS tamit am na ñoo xam ñu ngi ñafe ci parti bi métti na trop ñu ngi ci parti bi. Mhm. Abdoulaye Wade demoon na fi bàyyi benn moment ñoom ñoo téewoon parti bi mhm. ñu ngi leen di persécuter peut-être wala nangam ñoom ñu toog fii di ñafe kon bu fekkente ni légitimité ñoom jàpp mhm. ñoom dem nañ élection gagné xoolee sax ñu ci bëri ay Aïda Mbodj mhm. gagné nañ seen diwaan yi dëkk di gagné fi nga xamante fa nekk am na ñoo xam ne moom wane nañ seen ambition xaw ma peut-être nan lañu euh, analyser bi ku mel ni tey Souleymane Ndéné Ndiaye nekkoon fi ancien premier ministre ñu wax na lu leer ne day nekk ci ban bannière la koy nekkee parce que boo xoolee PDS nii mu nii mu doxalee nii xëy na dina am ñu d'accord ci candidature Karim Wade bi mhm. mais ku euh, comme ni ma la waxee Souleymane Ndiaye moom boo mhm. xool nu ni joxalee réew mi ku mel moom jël nay distance am déjà génn na PDS créé parti boppam waaw candidat la parce que tamit c'est ça Abdoulaye Wade bon parti ni ñu wax démocratie ci biir parti bi Abdoulaye Wade moom PDS loo ci mën wax tamit yëfi boppam

leer na wala ñeent sax ah, euh, ndongo ya euh, jógee Fastef ak euh, ñii di dawal camion ñoom dakkal nañu seen grève indil ngeen ci ay leeral et puis dañu tuddee levée de bouclier ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi joxe seen i kaddu jëm ci kaddu yu président Abdoulaye Wade génne woon keroog ca ba muy meeting ba noppi itam ki nga xam ne ni moo di Babacar Gaye di porte parole bu parti démocratique sénégalais ni ki nga xam ne ni moo di Karim Wade mën na doon candidat ci présidentielle yu 2017 jëm ci ay xibaar yoo xamee ni lëmbeen réew mi